di weneen koorog ren gi di ñaanal way dawle di ñaan yàlla may ñu wér gu ak fanu gudd ñu yàgg ko euh, woor ay ati ati at di ñaanal ñëpp di ndool ndokkeel ñëpp euh, ci bés bu tey bi mu di bés bu màgg euh, ci jullit yëpp ñu ngi wax alhamdulilahi rabbil alamina nga xam ne nag jullit tey gi njiit réew mi président Macky Sall ñu ngi koy xaar nag ci grande mosquée bu Ndakaaru mu war a ñëw nag julli si Euh, ànd ak euh, teew ak taalibe yëpp nga xam ne kon ñu ngi foofu ci grande mosquée nga xam ne tey mu di bés bu am solo euh, ci kon diine ji ak julli korite gi dañuy dem ci grande mosquée léegi nii rek fekki ki nga xam ne moo ñi nga xam ne ñooy suñu naataango yi ñu nekk foofu teewal ñu fa di Serigne Xaali Seck ak Ibrahima Ndong Euh, xaali maa ngi lay nuyu yaag Ibrahima maa ngi leen di siyaare di leen ndokkeel ci bés bu sell bi bésu tey bi euh, di wax alhamdulilahi rabil alamina euh, di leen baal wax di leen baal wax bu baax sëriñ xaali wattaxada allahu ibrahima xaliila salaamaaleykum jërëjëf Bamba Gueye ngi leen di siyaare di leen ndokkeel di leen balu xaq di leen baal ci bis bu màgg bu tedd bi nga xam ne nii moo doon doon ak feet goo xam ne nii bi ñu génnee ci weeru tedd yi nga xam ne moo doon shahru ramadan mubarak mu nekk weeru koor suñu borom dañuy defal taw feex nag ñu am feetu goo xam ne dañu koy feetu ngir itam mandargaal njeextalu koor gi loolee nag ñuy baaxoo di daje ci barab yi ci néegu yàlla yi ak ci pénc yi di julli li nga xam ne moo doon julli it te julli gi moo di julli korité euh, ren jii nag ci kàttanu suñu borom suñu borom defal nañu feex ba ñëw fii ci grande mosquée bu ndakaaru mu nekk jumaa yu mag yu ndakaaru ji nga xam ne nii incha allah ci kanam tuuti dinañ tàmbali julli gi niñ ko gisee nii ministre de l'intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome moo ñëw nii ñu gis ko muy nuyonte ak kilifa yi nga xam ne nii itam ñoo ñëw di ko teeru si gis nañ fi itam grand sëriñ bu Ndakaaru El Hadj Abdoulaye Diop ak yeneen kilifa yoo xam ne ni itam ku leen tudd tudd diine ji ku leen tudd itam tudd li nga xam ne nii moom moo doon mbooleem kilifa yi aada yi nekk fii ci Ndakaaru loolu nag muy am ci teewaay itam njiitu réew mi di président Macky Sall incha allah euh, bu 9h30 jotee ci la ñuy tàmbali julli gi waaye moom itam ne suuti incha allah dina yegsi laata 9h30 ànd ak ak ay kilifa ngir ñu teewee li nga xam ne ni moo doon julli korite gi. maa ngi nag ak sama naataango Ibrahima Ndong ak euh, ni nga xam ne itam noonu lañ koy baaxul defee RTS yebal fi ay ndaw ci kilifteef itam suñu directeur général. ak mbooleem kilifa yi nga xam ne itam ñoom la àndal liggéey bi ngir RTS liggéey bi nga xam ne moom la ñuy xaar ci moom ak cër bi nga xam ne moom la am mu ñëw taatan lépp lu fi tukkee ci wàllu xabaar ngir itam mën koo jottali umma bi ñu gis ko nii ci image yi ministre de l'intérieur muy nuyoonte ak kilifa yi nga xam ne nii itam ñoom ñoo ñëw ñuy ndokkeel ñëpp di siyaare ñëpp Ibrahima maa ngi bég lool ci bokk yow plateau bi di la ndokkeel di la siyaar di la wax fadal di la delloo siyaar sëñ xaal yi di leen di baalu ak di leen wax ne tey ni nga ko waxee rek tey bésu sant la tamit bësu kañ la kañ sant ki nga di borom bi ñu may vraiment ñu woor lu toll ci fan ba ñu tal wax di korité ci jàmm ak salaam kon kooku moo yeyoo cant kooku moo kon nag eh, dañuy eh, wax ne rek yàlla nañ ko fekkee ay déwéni déwén fexe ba li nga xamante eh, def nañ ko ci weeru koor bi yàlla feel defal ko ay tiyaaba Eh, jégal ñu suñuy bàkkaar suñuy rëcc-rëcc fexe képp koo xamante da nga tawat borom bi eh, fëgg sa bopp képp koo xamante ne am nga soxla boo xamante ne tis na lool borom bi fajal la ci barke weeru koor amin ibrahima ñuy eh, doli di ndokkeel ñëpp rek di ndokkeel réew mi yëpp di ndokkeel umma bi yëpp di ndokkeel adduna bi yëpp di ñaan suñu borom mi nga xam ne itam moo ñu defal tawféex ba ñu teewee li nga xam ne nii moo doon korite gi gannaaw ba ñuy dugg ci weer wi itam dañ doon ñaan suñu boroom mu dimbalañ ba ñu bis dugg ci bismillahi rahmaani rahim gi war cee génn ci alhamdulilahi rabil alamin ibrahima nag am na cortège boo xam ne nii mi ngi yegg nii xam naa ne itam euh, dañuy teew rek dañuy taaxeerlu rek ngir gën a mën a am yàqin ci cortège bii ban cortège la ak yan kilifa ñoom ñoo ciy teew waaye daal gis nañ ne ministre de l'intérieur kon mi ngi gàttandoo mhm. <laughs> lay loolee nag xam naa ne inshallah allah ah kon nak ki muy gàttandu moy premier ministre di Amadou Ba kon loolu ibrahim mo waral itam tay ak dal itam ngir am yàqin ci la ngay wax dara rek gën ko don lo xamné ni mo don dars buñu ñu war jàng la ministre de l'intérieur le ministre de l'intérieur euh, Antoine Félix Abdoulaye Diome donc qui vient d'accueillir euh, le premier ministre Amadou Ba ici à la grande mosquée de Dakar euh, pour euh, la célébration de la qualité la prière de l'Aïd el Fitr euh, qui sera dirigée par l'imam Alun Moussa Samb, Alun Moussa donc qui a l'habitude d'officier ici à la grande mosquée de Dakar. Nous allons rappeler que cette grande mosquée qui a été construite en 1964, l'inauguration a eu lieu en présence du roi Hassan II, du président Léopold Senghor et des dignitaires religieux de la Ouma islamique C'était en 1964 et que ce bel édifice religieux donc, qui a l'habitude d'abriter euh, ces prières-là, qui a l'habitude également d'accueillir ces fidèles venus alors euh, accomplir euh, ce devoir religieux Ibrahim ñuy donc comme vous avez vu donc euh, tout à l'heure l'arrivée du premier ministre Amadou et sous peu également on aura l'arrivée du chef de l'État mais aussi l'arrivée euh, euh, du grand imam de la mosquée de Dakar imam Alun Moussa Samba effectivement imam Alun Moussa Samba président de l'association des imams et oulémas du Sénégal cadet de Dakar vous l'avez rappelé Senghali, cette mosquée fut construite en 1964 et a été inauguré euh, cette même année euh, par le, président, Léopold Sédar Senghor. Hassan II, le roi du Maroc, et autres dignitaires marocains qui ont assisté vraiment à l'ouverture de cette grande mosquée de Dakar avec son minaret qui culmine à 67 mètres de hauteur et à chaque fois, comme vous l'avez rappelé tantôt, en période de Tabaski, tout comme en période de fête de Corité, le président de la République accomplit ici les deux rakas de la fête de, Corité, euh, tout comme la fête de Tabaski. Occasion aussi pour le président de présenter ses voeux les meilleurs à toute la communauté musulmane du Sénégal. Et tu me rappelais tout à l'heure que le chef de l'État a pris une décision particulièrement importante. Il a l'habitude de le faire à l'occasion euh, de chaque fête de Corité ou de Tabaski, c'est de gracier. Alors, ce euh, ceux qui qui étaient en prison. Il s'agit de quelques 500 personnes qui étaient dans les liens de la détention et qui ont eu à bénéficier de cette miséricorde-là. Et c'est tout le sens qu'il faut donner à cette fête euh, qui est le mois de Ramadan, qui a été un mois de pardon, un mhm. mois également, alors de pénitence, un mois de dévotion. Et mhm. quand le chef de l'État prend cette importante décision qui consiste à gracier des prisonniers, euh, comme nous l'indique le Saint-Coran, je crois que c'est une décision qu'il faut particulièrement saluer. Ah, une décision qu'il faut saluer, saluer Saint-Harry, parce qu'on nous dit que ces 586 euh, détenus qui ont été élargis, en tout cas des rigueurs carcérale, euh, une, manière de, se conformer à la Constitution, une tradition pour le président de la République, l'occasion de permettre à des personnes qui étaient vraiment en prison de passer la fête en famille. Et il faut rappeler que les délinquants primaires, euh, les délits mineurs sont concernés, excepté certains délits qui sont vraiment exclus de cette grâce. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, il est vraiment heureux de saluer cette mesure que le président offre à certains Sénégalais qui avaient des problèmes avec la justice. jërëjëf Ibrahima ni nga ko waxee rek kam xam nga itam weer wi dafa doon weeru yërmande ak weeru njéggalante premier ministre mooy nuyonte noonu ak kilifa yi nga xam ne nii daanaka dañuy bàyyoo ci ay gox yu fasantikoo ngir ñëw teewee premier ministre nag mi ngi saafonte noonu di maslaha ak kooku nga xam ne nii moom la feggool noonu ñu fal ne ministre de l'intérieur mi ngi fi grand serigne mi ngi fi ay kilifa yoo xam ne itam ñoo nekk ci nguur ak ay kilifa aada itam ñu ngi fi te niñ koy fi fii itam ci grande mosquée bi noonu lañ koy defee ci dañoo nekkee fii ci Ndakaaru boo demee fii Masalikul Jinaan ña nga fay julli boo demee yox feneen ak feneen mhm. waa mosquée omarienne julli nañ démb mhm. tey jii Touba ak feneen ak feneen mhm. ay Tiwaawan ñëpp dinañ julli loolu yëpp doon loo xam ne nii ndax lépp jàmm umma bi la ak yërmande joo xam ne nii kuute gi yëpp yërmande ci umma bi la te itam jàng nañ ci borom téere yi ñu ne nag euh, daanaka julli gi ci boppam moom uute gi loolu doon na loo xam ne ni itam lu ñuy baaxoo di gis la la ca am solo nag mooy rek suñu borom nangul ñu te itam ñuy rafet njor ci la ñuy def xamante ni moo doon sa gis-gis ak sa taxawaay ak mm. yéene ak yaakaar yi nga xam ne itam moom lañ ci am ndax yaakaar ji rek lañ ci am moo doon kay jéggale ak di yërëm ak di nangu mu suñu yaakaar ji ñu ci moom dara bañ cee yàkkeeku ak fu yaakaar yaakaaree rek ndax loolu rek lañ ci am looloo waraloon itam ñu doon jaayante ci weer wi mm-hmm. weer wi itam Ibrahima doon weer woo xam ne ñu génn ñu ci bare bare bari ñu jël ay ndab di ko jox nit ñi mm-hmm. di leel nit ñi te jàng nañ ci addis ñu ne kat lu tal ne genn wàllu tàndarma rek nga jox ko nit am na ju lu kawe kawe kawe ci loo xam ne itam tuyaabu ju cee ñëw la mhm. te nag dafa am kilifa gu ñu jàngal ñu ne am na pénc ak itam daraja yoo xam ne ñu ngi ci suñu borom ay góor laa cay yegg mhm. ñooñu ñay joxe ay dab ñoo koy joxe moo tax genn kilifa doon ci njàng mu tënku te itam mu doon xadab joo xam ne ni ñu war a mën a la mu ne dabe dab dabe dab boo bëggee dab góor yàlla yi nekk foofee da ngay nangoo joxe ay dab mhm. kon leele ci boppam ak jox nit ñi aw ñam loolu lu am solo la te loolu nag gis nañ ko ci jamono yi koor gi fu nekk ci mbedd yi ku nekk itam da di wëq li nga xam ne nii moo doon sa gafak ak sa nafa mhm. fexe ba yi nga xam ne moo doon doo doomu jaamu yàlla yi nga xam ne suñu borom nag moom dañoo sant jaamu yàlla loolu ñuy def ci jàkk yi ak jumaa yi ak feneen waaye nag liggéeyal suñu borom nag ci jaam ñi mhm. dafa doon loo xam ne itam lu kawe suñu borom la kon bu ko ñit ñi xamee di ko defee noonu dañ ciy sant di ci gërëm di ndokkeel ñëpp ba lépp loo xam ne moo doon itte la lépp loo xam ne itam moo doon ay naal la moo xam ci réew mi koo jëlee suñ kër gi mel ni itam RTS la ñu fay def itam ñu tawfeex ba ñu ko ak kilifa yi lépp ñu bokk koo daloo te muurloo ko ndax kat doon na loo xam ne itam ab sag la ci presse bi ak sag la itam ci li nga xam ne moo doon lii ñu bokk te mu doon suñu yëfi bopp mhm. loolu itam ñu ciy ndokkeel itam këru presse yëpp di ndokkeel umma bi yëpp di ndokkeel itam mbooleem fu doomu Sénégal nekk fii ci biir réew ak ci bitim réew te leen xamal ne daal incha allah nes tuuti ñi nga xaar njiitu réew Sarr grand sëriñ euh, grand imam bi nga xam ne ni moo doon imam Alioune Moussa Samb ñu koy siyaare bu baax di ko ndokkeel waaye itam di siyaare ko ndokkeel yeneen kilifa yoo xam ne ni doon nañ fi jiite te ku leen tudd itam tudd Baye Dame Diène ku leen xalaat itam tudd imam Maodo Sylla ku leen xalaat itam tudd ki nga xamante ne nii moom moo doon imam Jibril Diane Jibril euh, Diène ak yeneen kilifa yoo xam ne nii daanaka daan nañ faral di taxaw fii ci kanamu julit ñi ñuy joxe ponk yi ni mel moo xam ajjuma yi la moo xam itam bisu idi la loolu yëpp nag mu doon ak cant goo xamante ne daanaka dañ ko mun te ñàkk tudd te nag ñu ngi koy seedal suñu war Ibrahima. muy lu am solo sëñ xaali loolu sax eh, dañuy permettre rek ñu am une pensée pieuse ci ki nga xamante eh, ya ne moo fi doon toog di Ahmed Bachir Kunta yal na ko yàlla xare àjjana yokk leeram tas ñu si barkeem wax nga ko sànq weeru koor dafa nekk jamono joo xamante ne jamono yooyu échange la partage waaye tamit jamonoy jàppalante ci suñu biir ba tax na rek ñam yi nga doon gis eh, souvent da ngay gis bu dog jotee ñëpp képp koo gis rek loo am ci koñ yi ngay gis xale yi souvent di defar ay café Touba ah ak di dajale seen i dërëm di fexe ba ñi nga xamante ne amaan na heure wàcc da leen di fekk ci yoon bi ñu jàppale leen ci li nga xamante ne moo di dokkoor di loo xamante ne nag lu symbolique la parce que dañ ne mbooloo mooy euh, doole waaye tamit mbooloo ci la jàmm nekk te jàmm joojee nag moom la ñaan fii ci Sénégal di ko ñaan ci Afrique di ko ñaan ci àdduna gépp loolu sax moo tax ma naan sëñ xaali tey euh, président de la République du ñàkk tout comme ki nga xamante ne moo di imam Alioune Moussa Samba mu delloo aussi ci li nga xamante ne mooy vraiment li ñu war a gën a suuxat muy jàmm. li war a gën defal te mu law. te mu sax dàkk itam te ñu mën a peeg jàmm jooju te jekku jàmm ji ndax jàmm Sénégal mom ak foo ci mun di dem itam jàmm rek mooy li nga xam ne nii moo ñu jik te moo jik ku nekk te nag suñu borom defal nañu taw feex ñu xam jàmm yàlla bu ñu xam lu dul jàmm mel ni il y a un cortège qui est en train de s'immobiliser et uh-huh. là je suis euh, <laughs> presque sûr <laughs> mais aussi certain que c'est le cortège du chef de l'État qui est en train de s'immobiliser ici Évidemment. au niveau euh, de la grande mosquée de Dakar euh, mmh. Euh, donc, euh, un rituel que nous avons l'habitude de vivre et nous avons également la chance et l'opportunité, mais aussi l'honneur de couvrir, mais aussi de vivre ce rituel-là. Le cortège du chef de l'État, sa limousine, qui se gare et qui s'immobilise. Effectivement, son arrivée était prévue à 9h20 et donc euh, il est arrivé plutôt que prévu, trois minutes d'avance. Cela en dit long sur la ponctualité du chef de l'État qui vient, comme à chaque année, sacrifier à la tradition. Vous savez, le protocole d'État ne, lésine pas avec euh, la ponctualité. On nous apprend, euh, nous autres journalistes, que la ponctualité est une règle d'or, mais je sais que aussi chez le protocole d'État aussi, la ponctualité est effectivement une règle d'or. Le chef d'État qui vient d'être accueilli par euh, le euh, Premier ministre Amadouba, euh, le ministre de l'Intérieur à ses côtés et d'autres autorités religieuses, des autorités coutumières. Mhm. Et certainement, nous verrons sous peu le corps diplomatique accrédité ici à Dakar, parce que ce corps diplomatique a l'habitude de venir prier ici, à côté du chef de l'État, le président Macky Sall, Mingi qui euh, Kikoteru, du Premier ministre Amadou Amadouba, Fego, Akilife Inga ni Nyom le Bokal Ligebi, Nugisnon, ministre de l'Intérieur, Gisitam, Mbolem Kilife Inga Hamneni, Nyom Seni Daraja, Akitam Seni. seen i cër ak seen i ndomba tànk ak kilifteef gi ñu leen dénk dañuy ñëw teew fii ngir ànd ak njiitu réew mi président Macky Sall bés bi nga xam ne nii bésu feet la bés bi nga xam ne nii bésu cant la bés bi nga xam ne nii itam suñu ci suñu borom la mhm. kon ki dell teeru président ni ko bon mooy ministre de l'intérieur mhm. Abdoulaye euh, Félix Abdoulaye Abdoulaye Diom mhm. kon xam ni tam bu yeggee rek dina daje ak premier ministre itam ñu kon li doon na loo A de aada ju ñuy baaxoo di gis la ndax kat ni ñu koy baral di waxe rek le temporel le spirituel mom ñoo bokk ngënk réew mu ñu doon ay cër suñu borom leen ko kon doon bu ñu demee nii te itam lépp itam doon loo xam ne nii tawfeexu réew mi la ñuy doon ak itam gën di suuxat loo xam ne nii dañ ko fee bàyyi woon mhm. loolee lu am solo la Ibrahima lu am solo la sëñ Xaali di fàttali rek ne doyen Ahmed Bachir kunta yàlla na yàlla yokk leeram da doon faral di wax naan euh, président buur la buur bi yegsi na mais suñu borom yàlla moom borom la te mooy boromu buur yi mhm. kon nag bu président yegsee moo faral moo faral moo waral muy def li nga xamante ne ñaari raaka julli ñaari raka ngir nuyu juma bi ba noppi toroxlu ci kanamu boromam parce que fii dañ koy faral di wax néegu yàlla la kon képp koo xamante ne rek da nga fi ñëw règle yi nga xamante ne moom la euh, grande mosquée bi lal ci loolu ngay nga nga nga euh, tënku ba tax na rek président bu ñëwee wala keneen ku dul président bu ñëwee li muy njëkk def mooy daal joxe ñaari rakka yi mu ngi ni président ak premier ministre mu ngi noonu kon sëñ xaali ñaari rakka yi nga xamante ne faaw mu def ko laata muy def leneen nuyu jàkka ji. waaw loolu mel na ni moom lañ tuddee nuyoo jàkka. Mhm. ndax war ma ci boppam dafa am. suñu drapeau bi sax boo ko gisee da nga koy sargal da nga koy warmaal kon nag rawatina li nga xam ne nii moo di makkaanu suñu borom ci kaw suuf mhm. ndax suñu borom tey bu doon wàcc borom xam-xam nee ne ci néegam bi lay wàcc mhm. kon nag néegam bi moo waral melow yi nga xam ne ni moom lañu ñu war a mel mhm. ci ak yiw ci ak col gu jot col goo xam ne itam du tuum ranke lenn col goo xam ne itam gu sell la moo waral sax bis bi nga xam ne bisu feet la dañ na la ku ko man te nga jekk ko utal lu yees boo ko amul lu yees nag nga ut la nga xam ne ni itam am nga ko ca sagal waaye na nga fexe ba waajal sa bopp mhm. ndax lépp ngir màggaayu bis bi mhm. nak di néegu suñu borom di barabu suñu borom nga xam ne nii moo doon ki nga xam ne itam moo doon li suñu borom wax ne kat mhm. képp koo xam ne nii am na ay ibaadaat yoo xam ne da nga koy def mu dolli ci joxe say waxtu fii ngay teew itam bu la ko suñu borom man loo kon ku fi ñëw itam war ngaa mën a ba lépp loo xam ni itam bokk nañ ne boo ko mu ful say tuyaaba ful itam li nga xam ne say ibaadaat nga jéem a joxe lu ni mel ñuy ndokkeel ñëpp. sëñ eh, tey nga yaakaar ne président tey bu amoon message bu muy joxe wala sax sermon imaam Alioune Moussa Samba ci jamono joo xamante ne ñu ngi dëgmal li nga xamante ne moo di élection 2024 yi gis nañ ne léeg-léeg xol yi di yëngatu et tout et tey nga jàpp ne euh, amul euh, message bu gën a foor bu dul woote jàmm ci Sénégal. wax dëgg yàlla euh, xamuma lu gën a lu ëpp jàmm sax nag wax dëgg yàlla. Hmm. te nag boo xoolee sermon yi mu doon xutba yi. dañ leen di tënk xutba bu nekk dañ koy tënk ci jamono ak lay xew ndax actualité la rek mhm. moo waral itam li nga xam ne nii moo doon tolluwaayu réew mi voilà bu dee foog mu am pàcc boo xam ne nii foog ñu jukki ko ci mhm. amaana nag xëy na am na leen loo xam ne nii xëy na ñoom du ma xam seen gént du ma xam itam nan la ñuy waajale te itam kilifa paak kenn du ko jiitu ci mbaram <laughs> waaye li nga xam ne daal moo ci am solo mooy au moins <laughs> dans ce grand ensemble là il y aura un petit élément mhm. qui Effectivement, la paix, comme disait l'autre, la paix est, que pour les États, la santé est pour l'homme. Absolument. Donc euh, nous disons tout simplement la paix pour tout le monde, la paix pour le Sénégal, la paix pour l'Afrique, parce qu'on le voit actuellement ce qui se passe au Soudan, avec euh, ces six jours euh, de combat qui ont valu à plus de 400 qui ont, personnes tuées et des une situation déplorable au moment où euh, la communauté musulmane sur l'ensemble euh, des, euh, à, l'échelle mondiale est en train de célébrer cette fête de Corité qui consacre en tout cas une, une, tradition après donc 30, 30 jours de pénitence, de dévotion et de prière un moment de répit donc pour ces gens-là de pouvoir arrêter ces combats, mais aussi

mi nga xam ne ni moo doon xalifa bu Medina Baye ci liggéey bu am solo bi nga xam ne defoon na ko Soudan suñu borom itam ñëw indiwaat fa ay tolluwaay gis naa ko sax mu def incha allah communiqué ngir itam gën a soññ ñi nga xam ne ay taalibeem ya fa nekkal ak umma bi ngir ñu mën a taxaw ci jàmm jooju ngir ñu mën a suuxat jàmm jooju ndam lam ci amoon moom xalifa bi yàlla na suñu borom defalaat tawfeex ba ñooñu déggal ko ba wéy di ko déggal ba ndam loolu itam gën a yokk ndax sagu bu réew mi la woon sagu umma bi la woon sagu askan bi la woon itam mm. Ibrahima dëgg la sëñ xaali nga ko waxee noonu la Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass di di xalifu fayda tijaniya joxoon na defoon na fa ay tànk yu yu tànk jàmm yàlla defal ko ci ndam waaye nag jamono ji gis gis nañ li nga xamante ne moo fa xew xanaa di ñaanal ñëpp rek jàmm ji nga xamante ne moom la ñuy euh, sàkku jàmm jooju dellu siwaat parce que bu ñu naan ba nga na olof ñaay da naan balaa nga naan naam nefa te tey boo gisee ñu am euh, sañ-sañu ñëw toog di julli en toute quiétude daa fekk ne jàmm dafa am bu fekkee ne tal nañ korité euh, en sëñ xaali ak sa grand bu bu yànj bi boo ko talee daa fekk ne jàmm am kon nag bu jënd ginaar yi di xotti fii daa fekk ne jàmm am muy jàmm joo xamante nak nag waruñu ko woyofal parce que damay faral di déglu ay kilifa ñu naan sénégalais yi nañ def ndànk parce que réew yi nga xamante ne dañoo mës a am guerre problème yi ñu am pour ñu seen économie jógaat ay problème yu la kon nag tey à chaque fois bu ñu naan na ñëpp woote jàmm c'est pas un vain moo jàmm ji tudd ko yomb na waaye nag jëfee ko moo wara gën a mën a am solo. jëfe ko ak dox ko dox goo xam ne itam dox gu dëggu lay doon. Mm-hmm. ndax nag euh, am réew ndem dañ koo bokk. Mm-hmm. te itam jàmm ji doon bokk ñëpp mu doon loo xam ne itam moo ji ñëpp. Mm-hmm. ah li ñuy du sama gars ñoom Ousmane laa gis foofu. ak Thiaw laay <laughs> ñu ngi leen di ndokkeel waaw. Ah, ñoom Thiaw laay laay Maxtaar ak Gaari Faye ñu ngi leen di ndokkeel di leen ziar beneen cortège ngi nii nag cette fois ci. ki nga xam ne nii nag bu fi ñëpp ñëwee mooy nekk ca kanam. Uh-huh. di imam bi. mel na eh. mooy doges te moom nag bu yegsee rek niñ koy eh. baaxoo defee 9h30 eh. dañuy daal di tàmbali julli gi mm-hmm. kon ñuy koy euh, teeru nii mm-hmm. euh, kilifa yi itam niñ ko defalee njiitu réew mi mm-hmm. moom nag mooy njiitu fii moom imam bi ah, moo wala itam xam nga toujours c'est le patron qui vient en <laughs> ah, lépp rek ñu xam ne nag wax dëgg yàlla fii néegu yàlla bi moom suñ borom moo doxale noonu ay mbiram mu ah. doon ay cëriñ ko nangul itam di ko ko sante ku nekk itam xam la la suñ borom dénk waaw njiitu réew mi réew mi lañ ko dénk. Mhm. waaye nag moom ba tey ci réew mi itam. diine yi di cee bokk mu bokk jaboote fii waaye fii itam am ci njabootam koo xam ne nii bu ñëwee nag naan ko nag ndax diine moo féetee na ko kaw lii nag moom ah, c'est yàlla la kon incha allah imam ñu koy ndokkeel le corps la communauté marocaine ay yeneen kilifa yoo xam ne itam mhm. ñoom ñi ngi fii ak le corps diplomatique niñ ko waxee léegi rek mhm. accrédité ici à a à l'habitude de venir prier aux côtés du chef de l'État et euh, célébrer avec nous ce jour de fête, ce jour de consécration, mhm. et ce jour qui marque la fin du mois de Ramadan, un mois de pénitence, un mois euh, euh, d'abstinence, un mois durant lequel alors, on a décuplé nos efforts pour faire preuve de dévotion et mhm. pour multiplier à plus l'infini alors toute la bénédiction qui accompagne ce mois de Ramadan, mhm. mais aussi multiplier par Hélène de 1 tous les péchés. Amine <laughs> ah, égale zéro. LN2 <laughs> zéro. Mais Ibrahim, je me rends compte que tu n'as pas oublié tes cours de mathématiques là. LN2, c'est ça. J'étais un piètre mathématicien ah, quand Mais, 2 <laughs> égal à zéro. C'est ça. Donc il faut multiplier bien par euh, LN2 mais bien tous les péchés. Tous les péchés. Parce que ku ne xaj na mhm. ci ci ci ci ci ngëneelam yi moo tax mhm. nañ ko yaatal rek ñu yéenante jàmm yéene ku nekk jàmm rek bu ko defee suñ borom yi nga xam ne ni moom turam mi sax mhm. dafa doon yërmande mu mën koo lawal ci ñëpp rek waaye ñu koy dox nag di ko jëfe di ko dund te mu bañ a yem ci làmmiñ yi mais xaali wax mu la am solo mu dëggu

bon legs euh, euh, nous avons euh, eu, dont nous avons hérité, et nous avons l'impérieuse nécessité de et le devoir de sauvegarder et de pérenniser ce legs-là. Mhm. Parce qu'on n'a pas le droit de faire moins que ce que les anciens ont fait. Effectivement. Alors ça, personne n'a ce droit-là. Il faut également que nous nous battions, que nous nous, nous mhm nous découpions également alors euh, nos efforts pour réussir ce pari-là mhm. et qui n'est pas un pari qu'on ne peut pas qu'on peut pas atteindre. Hein. Effectivement. Bien, participer à la euh, construction de l'édifice. Hein. Exactement. Chacun mhm. amène alors sa pierre à l'édifice. C'est ça. Et que l'édifice, à l'image de notre tour, <laughs> un, alors, tour à la euh, tour. Mais c'est exactement ça, Ibrahim. Quand <laughs> imaam a ngi noonu ndeysaan dit uh-huh, uh-huh. koy ndokkeel a ko siyaar muy waxtaan ak ñi nga xam ne itam xam naa protocole fii nag. ak ñi nga xam ne uh-huh. staff bi ak ñi nga xam lépp lu jëm ci wàllu liggéey bi ak yor néegu yàlla bi desan ñoo ci nekk ñu leen ciy ndokkeel moom nag ndeysaan ñu ngi zikkar noonu ak itam di sabal suñu borom di tudd ak màggam niñ koy baaxu defe kon ñu rek en ambiance ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਦੀ يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين به اسم ربك الأعلى الذي خلق فصوى والذي قدر فهدى والذي أخرج لمرعى فجعله خطى نحوى سنقرئك فلا تنصى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيصلك لليسرى فذكر نفعت الذكرى سيذكر من يخصى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 الله أكبر السلام عليكم السلام

ngir joxe jullik it gi nu ñu koy baaxoo di defee ñu sant suñu borom bu baax imaam bi mu yegsee rek Ibrahima xam nga ne dafa daal di euh, kabar ni mu ko fàttali fàttalee itam ni ñu war jullee julli gi mm-hmm. ngir lenn ci rëq-rëq mbaa lenn ci njuumte bañ cee am te fàttali itam ñu xamal nañu ne dafa am ka tolluwaay bu kawe ci wàllu njàng ak wàllu njàngale Ibrahima. effectivement ni nga ko waxee noonu la sëñ xaali gannaaw ba muy dugg si dugg see kañ borom bi. Mm-hmm. baat yu sell yooyu jubal fi nga xamante ne moo di minbar ba daal di fàttali li nga xamante ne noonu la ñaari raaka yi euh, lañ ko fas yéene jullee mu julli ba noppi nuyu ñi nga xamante ne ñoom la euh, feggaloon muy ki nga xamante ne mooy la président ak ñi nekk ci kanamam léegi nag ci xutba bi la jëm muy xutba boo xamante ne nag lu am solo la ci li nga xamante ne moo di julli bi. incha allah kon li ñuy def rek mooy am yéene teewlu xutba bi nga xam ne nii moom la imam indi.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 والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله الذي سهل لعباده طريق العبادة ويسر ووفاهم أجور أعمالهم من خزائن جوده التي لا تعد ولا تحصر وجعل لهم يوم عيد سعيد يعود عليهم في كل سنة ويتكرر وضاعف فيه مواهب الإنعام على العالمين أحمده وأشكره جمل العيد بالسرور وأوجب فطره وحرم فيه الصيام وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وصى مرائد الرضوان ألا من صرح صدره بالإسلام وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله سيد الأنام ومسباه الظلام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته يا معشر من كنتم بالأمس صائمين لقد مضى عليكم شهر وأنتم في جهاد كريم وطاعة مستمرة لله عز وجل تجاهدون شهوات بطونكم وفروجكم وتصبرون احتسابا لربكم على الحرمان المؤقت منها لقد صمتم رمضان إيمانا واحتسابا وصليتم لله قانتين وعبدتموه خاشعين فتقربتم إليه بكثرة تلاوة القرآن والذكر والدعاء والاستغفار وأكثرتم من البذل والإعطاء والإحسان وأخرجتم زكاة فتركم للمستحقين وقد جعلها الله طهرة للصائمين <coughs>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 محسر أحمده وأشكره ألا ما أولى من جزيل النعم وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله عظيم الإفضال والكرم وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله سيد العرب والعجم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما هلل محلل وكبر مكبر أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ربكم وتعاونوا على ما فيه خير لكم ونفع وسعادة لأوطانكم وحافظوا على آداب دينكم وراقبوا الله في أولادكم ونسائكم ولا تهملوا تربيتهم وصونوا أخلاقهم مما لا يليق وجنبوهم مواقع الفسوق والفجور وزودوهم في كل حين بالإرشادات النافية والنصائح الغالية مروهم بأداء الصلوات الخمس في الأوقات وسهود الجمعة والجماعات والمحافظة على سائر العبادات وأحسنوا إلى نسائكم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالنساء خيرا ويأمر الرجال أن يعاصروهن بالمعروف ويقول خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي وعليكم ببر الوالدين والإحسان إليهما وأحرصوا كل الحرص على رضاهما فإن رضا الوالدين سعادة في العاجل والآجل واحضروا غضبهما فإن غضبهما شقاء في الدنيا ووبال في الآخرة وعليكم بإصلاح ذات بينكم وصلة الأرحام وإطعام الطعام وإيتاء السلام والتمسك بمبادئ الدين القويم والتخلق بأخلاق القرآن العظيم والاهتداء بسنة النبي الرحيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وحاسبوا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 jamono ju nekk ci ñun at mu nekk mu ñëw ñëwaat bés boobu mooy lan yàlla mooy indi koor nen wóor leen yonante bi wax ju nan lañuy woore nan lañuy woore suumu li ru'yati alxilaali woor leen parce que da weer wi gis ka wa aftiru dog leen lu tax ngeen di dog parce que da ngeen sentu weer wi gis ko fa in xumma bu asaman si amee bu ba mënu leen gis weer wi fa akmilu iddata shaaban thalathina yawman kon da ngeen motali weer fan weeri fan lolu moo ñu war fan weeri fan sentu nañu gisuñu woor nañu fan weeri fan te nag ñuy wax nit ñi ne koo ya, koo bokkulul mom, sowu jant mënuloo wóorandoo bokkulul jant mënuloo woorandoog moom mënuloo woorindoog moom mom tax parce que koor yegul timis bu fajar xaree la ba jant bi so koor yeggul timis bu fajar xaree la ba jant bi so bu jant bi rek dañuy fa la koor yem yalla nak bi mu ñu andilee koor ñun ci nga ne gëm ko gëm nañu ne mooy yónni muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci muhammad digal suñuy sëriñ su baax si digal ñooñu ko loolu yëpp def nañ ci li ñu mën ba yëg si ci bésu tey bii mu nekk bés boo xam ne dafa araama or kenn waru koo or bésu tey kenn du ko wor ku ko wor doo am tuyaaba bàkkaar ngay am parce que yàlla moo ne bu ci kenn wor woor nañ ko def nañ ci liñ ci war a def génnee nañ ci sunuy mooru koor kon tey jii lan lañu def si tey dañu ñëw julli si julli si yàlla lu mu def lu nekk rek dafa am lu tax ñu ñëpp dañu war a xam lan moo tax yàlla digle julli ginnaaw bi ñu gëmee ne mooy yàlla gëm luy lislaam gëm julli juróom gëm dem màkk gëm woor gëm joxe azaka lenn lu ci nekk dafa am lu muy dox julli li muy dox mooy ñu ñi toog ci jàkk ji yépp ak feneen fu ñu jullee fu mu mën a doon fii ba Chine kuy julli ku nekk booy kàbbar doo wax sa làkk allahu akbar ngay wax kuy jullit ku mën doon ak foo mën a julli booy kabar allahu akbar ngay wax so waxe allahu akbar ba pare amna ño xamé ni dañ nan tek ba mu yag ñu ne alhamdullilah rabbil alamin lutax parce que bismillahi rahmani rahim ñom dañ ko dul wax ci kaw waye bismillahi rahmani rahim ëpp na nit di julli te du ko wax liif gi nekk ci bismillahi bokk ci wa tuwilal baaw bi bismillahi taazuman wa rifatan lillahi liif googu ñu teg si bokkul ci baa bi màggal yàlla yëkkati yàlla xam ne amul kenn ku mu yemal moom kenn rek mooy ki mu doon moo tax ñu yëkkati liif googu te lépp loo xam ne dañ koy commencé te ko muñ ci ñu ko bismillahi rahmaani rahim dafa mel ni ku jënd xar te amul genn mu nekk xam ne ne am xar li koy rafetal mooy genn ba kon képp koo xamee ne ki da ngay julli te waxuloo bismillahi rahmaani rahim teguloo ko fenn te boo demee béykat da nga bokk ci tarixa cheikh dañuy wax ni booy jàng fatiha bi sax bëgguñu nga tax ne wax ne bismillahi rahmaani rahim taxaw dañu bëgg nga wax bismillahi rahmaani rahim milhamdulillahi rabbil alamin soo ko taxaw milhamdulillahi rabbil alamin nga soo ko taxaw liaison boobu ngay def Soy julli léegi kon nga wax bismillahi rahmani rahim déedéet bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin nga soog a taxaw parce que dafa am lu muy jëriñ ci kon képp koo xamee ne ki ci tarixa bi wax nga bokk loolu war nga ko booy julli noonu nga ko war di jànge ak lan ñu ne ñun ñiy toog fii ne dañuy julli dañu ragal as-salatu tanha anil fahsa'i Iwan munkar le salte le ñaaw le beggandi liy dindi personnalité ni li dindi dignitéem luy tax fu mu waxe daw lu bon le salte le mu mën a doon xeex añaan soxor yooyu yëpp kuy julli waroo ko def képp koo xamee ne yaa ngi julli te mën a yéene ko nit ولا وخل بون جامي كو سي نيت تاي غا لي غاي وخ ليب تيغو لوكو فين سي سا خيلاتو بوب نينا نيو ريك غاي وخ لولا كو كاي ديف جولي غولو كوي جولي دو فين كوي جولي دو انيان كوي جولي دو سخر كوي جولي دا فاي ام ريسبي تي واي واي جورام لوتاخ داخ يالا ما وخني وقضى ربك لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر أحدهما وكلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الظل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا باي أك ياي du doom mën a toll fu mu mën a nekk lu ko yàlla jox ci daraja dafa war a màggal baayam ak yaayam waru leen a dayadil ba am keneen ku ko jaral leneen lu mu jaral lu ko jaralul ñaari way juróom ab sëriñ bu mu mën a doon boo ko lan topp di ko defal li nga koy defal na fekk yaa ngi koy defal sa way jur ba pare amu fi benn sëriñ bu am aljana aljana benn sëriñ amu fa place sëriñ lan la mën a wax taalibe li ñuy wax def ko pour bu ëllëgee nga mën sobe parce que moom xamul fan la jëm ëllëg ku xamul fu mu jëm ëllëg mënul wax kenn dinaa la yóbbaale kon kenn ku nekk yaay yóbbu sa bopp fa nga jëm ëllëg te yàlla mën na baale bakkaar bu nekk ba mu des bakkaar bokkaale ku jël yàlla utal ko yàlla comme moom yàlla mënu ko baale moo tax mu ne qul wa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yuulad wax leen ne yàlla kenn la allahu samad mooy teen bi dul dëy ku fi yor loo mën a yor lu mu ma toll yàlla la ko jox te la muy joxe yëpp amul lenn lu muy wàññi ci li mu yokk dara lu muy wàññi amu ci te daf ñu yoon yu bari yoo xamee ne kenn ku ci nekk war nga cee mën a gëme yàlla ñun ñii ñëpp dañuy juddu ku jigéen dañuy jur bi ñuy juddu ñuy bopp mooy jiitu ku nekk xam na ne bopp xajul ci kanamu ku jigéen bopp xajul ci kanamu ku jigéen te fa lay jaar génn te mooy jëkk génn kon kii nga xamee ne mooy tax ñu judd du kenn moom la bu doom juddoo ki koy xiirtal ci ñu jox ko weñ mu xëcc a naam du kenn moom la du baay du yaay kooku boo ñuy topp di ñu topp di ñu topp ba ñu majeur mu ne doom bu amee juróom-ñaari at buy julli na àndax moom bu demee ba am fukki at bu julliwul na koy duma duma ndànk lu tax parce que dañu bëgg mu tàmm bi muy ndaw te it bàyyi amul warul am sañ-sañ dem ba naan sama doom mënatu mënatuma ci moom dara doom feeg bàyyay baayam baayam dafa war a taxaw ci ni mu baax te nag li xew ci dëkk bi dafa mel ni xale yi amatuñuy ndey amatuñuy baay ay jàmbur ñoo leen di génne ci mbedd mi ñuy def lu kenn xamul lu mu doon kenn xamul li ñuy def lu mu doon seen i ndey ak seen di dund te loolu yëpp responsabilité boo xam ne bu ëllëgee yàlla du ko laaj seen seen i woy jur la koy laaj moo tax mu ne doom na topp woy juram ginnaaw bi mu nangoo ne yàlla mooy yàlla nangu ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla ko yónni bu demee ba nga xamee ne kër gi sax moo ko yor mooy indi dépense mooy joxe lu nekk nee na buy wax ay woy juram na wax ndànk bu mu wane benn yoon na yor kër gi oof bu ko doom wax benn yoon baay bu ko doom wax benn yoon yaay doom bu mu gëdd benn yoon papaam doom bu mu gëdd benn yoon yaayam moo tax ñi ku xàmmee ba am nit koo xam ne gi woy juróom dafa génn àddina su mënee jullee néew danga nga naan ko jiiteel sa yaay wala jiiteel sa pap lu tax parce que bu ko jiitee yàlla da koy yóbbu aljana direct parce que yàlla ko wax yàlla moo ne waqul lahuma waqul rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira yàlla yërëmal sama baay ak sama yaay nañ ma daan yërëme bi ma nekkee ndaw kon doom bu taxawee ci kanamu pàppam di ko ñaanal yàlla lu mu ñaan yàlla jox bu taxawee ci kanamu yaayam di ko jullee lu mu ñaan yàlla defal ko koo xamee ne kii loo ñaan yàlla def ko war nga xam say waajur ñooy ña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 bu ñu koy wax ne diw dafa am xam-xam xam mooy lan résumé la lu ñu lu ñu résumé la résumé bi lan la xam na xàmmee na mag ñi daawuñ jàng lu jeex lu xaaj lu ñu yem rek lañ daan jàng mais topp yàlla lañ daan topp yàlla ba yàlla di leen defal loo xamee ne lii lu ñu def mu dëppoog lu yàlla bëgg bi himmatin aw bi xaalin loolu la leen yàlla daan joxe li mu leen daan jox te nag loolu ku koy pour nga am ko da jàmmu yàlla def nawle say morom te gis ngeen képp koo xamee ne yeggaguloo ci tax wallahi doo kenn te nag nuñ koy firee ñun mooy jomb jomb naa nangam jomb naa nangam pour nit yegg ci foog dafay gëm yàlla gëm yàlla gu wér loolu mooy tax mu mën a am jomb te nit bu jombul dara du ko neex def moo bàyyi may ñooyam yal yàlla defal ñu tawfiq yal na yàlla dool ñu sutura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 wax na ñu ngi nuyu président de la république ministre de l'intérieur ambassadeur yi fi nekk yépp ñu ngi leen di nuyu institut islamique le directeur bi ñu ngi koy nuyu collectivité lébu grand serigne ak ñi moo àndal ñëpp ñu ngi leen di nuyu ak man man ci laa bokk waa grand mosquée ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ñaanal seen taxawaay rafet ah sama xaritu bopp tam maa ngi koy nuyu yéen ñëpp ñu baax ngeen waaye man dama am xarit boo xam ne maak moom ñoo dëkkaale woon ca Ndakaaru mu dëkk ci Abdou Karim Bourgi bi mu dëkk ci Rue Fleuris muy Cheikh Tidiane Gadio xaw ma ndax ñëw na am déet maa ngi koy nuyu maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla defal ñu tawfiq kon ñu jàng salatul fatiha fatiha qul wallahu ahad qul a'udhu falaq qul a'udhu nas salatul fatiha yàlla may ñu ñun ñëpp ñu ñëwaat déwén fekk julli gi te li nu bëgg te mu gën ci ñu yàlla defal ñu ko bismillah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 والجهد وجه إليك منتهى مليت غافرا لما أعطيه من زلل يا رب حلي فلا أخفى عليك علي لم تخفى فيك قلوب صاحب الأزل ببابك الأعظم المفتوح يدخله كل أتاك فإن لم يدخل اليمن توصلي ربنا ولا سل على خير براء من التفتيل والجمل سيدنا أحمد المحمد السافئنا آوي الفضائل عم سوى مثل الناصر الحق بالحق المؤيد بنسر الحبي بالنفاق بالملل وأنه المرشد الهادي الصفي إلى صراطك المستقيم وبذي الخلل ثم على لي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 Voilà, nous venons donc de suivre le sermon de l'imam Ratib de la Grande Mosquée de Dakar, Alun euh, Moussa Samba, euh, qui est revenu sur euh, le mois de Ramadan, c'est un serment qui est fait en arabe et en wolof. Actuellement, il est en train, euh, c'est le chef de l'État euh, qui euh, donc va prendre le relais parce qu'il faut aussi qu'il s'adresse à la presse pour un message rituel de félicitations, de, de pardon, un message également qui aura des qui, va mettre l'accent sur euh, euh, sa volonté de de dire pardon, mhm. sa volonté de, féliciter, sa volonté de euh. présenter euh, ses voeux mhm. à l'ensemble de la Oumma, à l'ensemble de ses concitoyens. Mhm. Nous parlions donc du serment de l'imam qui a été fait en France et en Wolof, qui est revenu sur les bienfaits du mois de Ramadan. Il a invité donc les fidèles à se consacrer exclusivement au service de Dieu. Il a sublimé le comportement d'un musulman exemplaire. Il a aussi euh, mis un accent particulier sur le jeûne, sur également les 30 jours de jeûne qu'une partie de la communauté musulmane mhm. a euh, observé et mhm. il s'est fondé sur des textes pour étayer son propos. Le mhm. sens de cette prière que nous venons d'accomplir aussi, l'imam s'est penché là-dessus, sans oublier les effets euh, que la prière doit avoir sur le fidèle, parce que la prière également, c'est euh, une occasion pour le fidèle de vivre intensément sa foi et de changer fondamentalement de comportement mhm. si tant il avait un comportement déviant. Donc ça, c'est la responsabilité également des parents mhm. vis-à-vis de la progéniture, vis-à-vis des enfants. Mhm. L'imam a mis un accent particulier sur cela. La conquête du pouvoir, une conquête pacifique en attendant le jour des élections également, a été un point sur lequel l'imam est revenu. Ibrahim Ninko mm. c'est le chef de l'État euh, qui euh, s'apprête à s'adresser à ses concitoyens dans son message de mm. félicitations. Euh, comme d'habitude, il est devant le pupitre pour délivrer son message la présentation de vœux à l'ensemble des Sénégalais d'ici et d'ailleurs. Et comme vous l'avez rappelé, l'imam est largement revenu sur euh, euh, son serment. Plusieurs points ont été abordés, des valeurs qui doivent gouverner vraiment euh, le comportement d'un bon musulman. L'imam Alun Moussa Samba, qui est tout fidèle à sa, tradition, hein, il a vraiment invité aux jeunes de s'identifier au modèle que constituent nos guides religieux, parce que quoi qu'il en soit, il faut savoir qu'aujourd'hui, le Sénégal a un islam confrérique. Donc aujourd'hui, ce sont nos guides religieux qui nous permettent vraiment, en plus du euh, livre sang, de pouvoir euh, euh, se mettre sur le trois chemins, respecter les préceptes de l'islam, mais aussi s'entraider comme le veut la tradition dans ce mois béni de Ramadan, un moment de dévotion, de prière. Donc le président que nous allons écouter. Il est devant le pupitre et sous peu, il va euh, s'adresser à ses concitoyens, il va s'adresser à la Ouma, il va s'adresser également aux fidèles qui étaient venus ici à la Grande Mosquée de Dakar mm. pour accomplir avec lui alors euh, cette prière de Corité. Bonjour, nous célébrons aujourd'hui euh, la fête de l'Aïd el-Fitr au Corité qui marque la fin du mois béni de Ramadan. Quel est le message que vous avez envie de transmettre au peuple sénégalais Merci. Merci beaucoup après avoir effectué la prière de la Corité, je voudrais rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis encore une fois d'accomplir le jeûne qu'il nous a prescrit comme un des piliers fondamentaux de l'islam. Le ramadan qui vient de s'achever a été un moment de vivification de notre foi dans la quête de la grâce divine, mais également un moment de rappel à l'humilité, à la solidarité et au partage avec ceux et celles qui vivent dans le besoin. C'est dire que la quête de l'élévation spirituelle à laquelle nous nous sommes évertués va de pair avec la rencontre du prochain par la culture des valeurs de paix, de tolérance, telles que notre imam Ratib Alaji Alun Samb vient de nous le rappeler dans son sermon. Mais ces valeurs, c'est également des valeurs de respect mutuel et d'entraide qui rendent possible la vie en société. Parce qu'au-delà du culte rendu à Allah, l'islam est aussi une religion d'humanité, une religion de paix, de solidarité et de justice sociale, mais également une religion de concertation sur nos affaires communes. C'est la raison pour laquelle, profitant de cette journée, je renouvelle mon appel à toutes les forces vives de la nation un appel au dialogue et à la concertation, bien sûr dans le respect de l'état de droit. J'ai également une pensée pour tous nos frères et toutes nos sœurs de la Oumma islamique qui vivent des moments difficiles, de la Palestine au Soudan et ailleurs dans le monde. Nous prions pour le retour de la paix dans toutes ces contrées. Je voudrais saluer nos guides religieux, leur témoigner ma gratitude et solliciter en retour leur prière pour un Sénégal de paix, pour un hivernage pluvieux et surtout pour une bonne campagne agricole, campagne pour laquelle je viens de décider avec le gouvernement de mettre euh, à disposition une enveloppe exceptionnelle de 100 milliards de francs CFA pour accompagner nos producteurs en cette année. Je remercie l'imam Ratib et je présente mes condoléances à la communauté Lebou, à la famille Diagne, aux dignitaires de la communauté Lebou, aux grands Sérigne de Dakar, à l'occasion du décès de Al-Haji Megoube Diagne, qui était le Ndejiro, puis Allah subhanahu wa ta'ala l'accueillir en son paradis éternel. Je sollicite le pardon de tous et accorde mon pardon à tous. Puisse Allah accepter nos dévotions et nous aider à préserver dans l'accomplissement de ses prescriptions. Devenez-y à toutes et à tous. mbokk Guinabou, nous bu ñu sant ci muhammad sallallahu alayhi wasallam. sallam santa santaat suñu di ñu may ñu tàmbali weeru koor di génn ci ci jàmm ñu ñëw tey fii ci grande mosquée bu ndakaaru si njiitalu suñu imam ratib imam El Hadji Moussa Samb julli mu jiite julli korité wax ci wax yu am solo si diggante doom ak ay way juróom muy thématique bu ama am solo ndax ci société lañuy ñuy dund dina baax kilifa yi di fàttali li nga xam ni moom la diine di wax ci diggante nit ki ak waajuram nit ki ak euh, dëkkandoom nit ki ak ki nga xam ne moom la bokkal jamono. ci loolu nag ñu jàpp si bu baax a baax li mu wax ci responsabilité waajur yi jëm si seen njaboot. a muy lu am solo jàpp naa ne ñun ñëpp kenn ku ci ne war nga ko mën def muy Euh, ay digle yoo xam ne soo ko doxalee ci sa biir njaboot yàlla mën na la ci génne ak ay ngéneel ñuy santaan nag bu baax di jaale communauté lébu collectivité lébu bi nga xamante ni kenn ci kilifa yi muy ndey ji réew alaaji Magobi Diagne moo wàcc liggéey ñun ñaan yàlla mu xare ko aljanna di ñaanal njabootam yàlla may leen xolu muñ te teg loxo si ginnaaw li mu bàyyi si ginnaawam di jaale grand serigne euh, Abdoulaye Makhtar Diop di jaale imam ratib di jaale dignitaire communauté bi yëpp ah di fàttali rek ne jamono jafe lañu nekk waaye li jamono di jafe-jafe ñu ngi def son kem kattan ngir wàññi jafe-jafe yooyu le ndax ku ne xam na ne ci mbas mu yàgg la ñu jógee ñetti at guerre bi am ci Ukraine ñëw yokkati jafe-jafe àdduna bi lépp cher waaye terewul taxawaay yiñ ci def wàññi na li nga xam ne moo naroon nekk jafe-jafe askan wi euh, ñu ngi ñaan yàlla nag loolu gën a jëm kanam moo waral ma ne même nawet bi ñu dégmal pour la première fois ci histoire du Sénégal gouvernement bi jël lu toll ci téeméeri milliards war ko jàppale béykat yi ci wàllu engrais wàllu matériel ak lépp loo xam ne dina tax mbéy mi jëm kanam loolu nag bu amee li ci des dañuy ñaan suñu borom mu defaral ñu nawet bu barkeel su ko barkelee ñu murloo ko may sant kilifa diine yi ci réew mi di leen ndokkale ci bés bi di leen sakku ñaan ñeel Sénégal jàmm sax fi ak teraanga ndax jàmm si la lépp xej kon loolu nag dinañ ci dox maa ngi wootewaat

en tout cas ñun moo ñu fi bàyyi te moo fi wara a bàyyi képp kuy jog di am yéene wala di yaakaar liggéeyal waa réew mi kon nag loolu maa ngi ci woo ñëpp di balu ak ñëpp te di balu ak ñëpp jërëjëf bon Ibrahima ñee ko teewloo ndoo ci kàllaama tubaab la ko njëkkee mhm. teg ko ci kàllaama wolof fi mu nekk nii nag réew mi mi ngi nuyoonte ak imaam ratib imaam ratib bi mu defee xutbaa ma pare mi ñu ko waxee njiitu réew mi ni mu koy baaxoo di defee mhm. dafa yëkkati kàddu yi ndokkeel kàddu ziyaar kàddu balu ak kàddu bale ak mhm. ak ñi nga xam ne itam ñoom la bokkal réew mi njiitu réew mi nag mooy diisoo ni ak imaam ratib ak ki nga xam ne moo doon grand sëriñ mu ndakaaru mhm. feggoo itam ak premier ministre njiitu réew mi nag mel na ni mi ngi am ku muy woo xam naa ne di joxe ay instruction ak itam di gën a am lu muy dénkaane mhm. ci xëy na itam itte ak itam lu ñu war a waxtaane ci diggante kilifa yi mhm. loolee na ki seen biir la te lépp itam mu doon loo xam ne nii dafay soxal réew mi soxal umma bi mhm. soxal itam askanu réewum Sénégal ni koy baaxoo di def Ibrahima lii rek mooy taarixu réewum Sénégal lii rek mooy itam taaru réewum Sénégal dëgg la sëñ xaali nañ ko sànq ci njalbeen laata président di ñëw ak ki nga xamante ni moo di imaam Alioune Moussa Samba ne li nga xamantene mom lañuy xaar ci ñi nga xamantene ñoo jité réew mi tout comme les autres forces vives yi nek ci Sénégal moy jamm parce que jamm ci la lepp xej dañuy faral di wax naan Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar et aujourd'hui il est vraiment heureux que président de la République xam loolu wax ne loxo bi nga xamante ne tàllal na ko ngir woote concertation yi banque ko benn yoon kon nag foofu lañ koy xaar en tant que président de la République mu woote jàmm waxtaan ak ñëpp parce que jàmm jooju moom la ñëpp soxla moom mi nga xamante ne la yàlla tey teg ci bopp réew mi jàmm la bëgg ngir mën doxal jàmm jooju nag ku amul doo tala doxal kon ñu ñaan yàlla jàmm ji nga xamante ne na loxoom pour woo ñi nga xamante ñoo bokk réew mi ñu dëgg jàmm joojee ñëw participer ci waxtaan bi nga xamante mu ngi koy woote bu ko defee ñëpp daal di gis seen bopp Ibrahima nous avions donc euh, pas tort de dire que Euh, le mot paix va venir et revenir euh, euh, sur le speech et de l'imam, mais ah. aussi du chef de l'État. Mhm. la paix a occupé une place de choix et dans le sermon de l'imam, mais mhm. aussi dans l'adresse que vient de faire le chef de l'État, mhm. qui a dit et qui a redit sa volonté de s'asseoir autour d'une même table avec toutes les forces vives de la nation pour discuter alors de façon extrêmement claire, alors de tout euh, ce qui intéresse et de ce qui vertèbre alors euh, notre pays en termes de segments et en termes également de préoccupations. Mhm. Il a dit que oui au dialogue, oui à la négociation, oui à ces discussions-là, mais dans le, respect strict de ces institutions mhm. et des tenants de nos institutions. Donc ça, c'est particulièrement important. Mhm. C'est un pan extrêmement capital de son speech que le président de la République vient de faire. Le chef de l'État aussi a repris l'imam parce que l'imam mhm. a fait une invite particulièrement pressante aux parents et aux chefs de famille. Mhm. Il euh, les a mis devant leur responsabilité pour que cette responsabilité que ces parents doivent exercer sur leur progéniture, sur les enfants, alors que ces parents-là euh, fasse preuve de responsabilité suffisante mhm. et également euh, de tout ce qu'il faut euh, pour exercer ces responsabilités-là. Parce que, oui, comme nous avons dit l'islam, mhm. le cadre hadith bi leer na mhm. nga xam ne nii moo doon ay dañ di ndax xam naa ne mi ngi nekk ci wéy ko wajur yi nekk ci hmm. kër gi hmm. waaye itam nekk ci imam bi nekk ci nekk ci njiitu réew mi nekk ci ministre bi ñëpp itam ay sàmm lañ leen di laaj <laughs> ñun ñi itam di ñu nekk lañ ci te xam nga ah. wax ñu lay déglu itam ndax gënu koo kawe ah c'est sûr waaw kon nag yàlla na suñu borom dimbale rek ba nattu boobu ci mën di am lu kawe suñ jot effectivement le chef de l'état aussi wax na ko xam nga dañ jëgmal nawet bi mhm. nee na lu tolloog téeméeri milliards ci suñu xaalisu réew dinañ koy yokk ci ñi nga xam ne nii moo doon ni ñuy waajale nawet bi ndax dañu nekk ci réew mbay mhm. tey itam euh, réew kat li nga xam ne bi ñuy sàkku ak di béy di li nga xam ne itam moo doon suñu koom di suñu gànjar mhm. loolee dañ ci war a mën a ku nekk def ci kem kàttanam mhm. moom itam jaale na ñi nga xam ne ni ñoo doon njabootu lébu mhm. ci ndey ji réew bi nga xam ne itam moom moo fi bàyyeekoo di euh, sëriñ itam mago bi Diagne nekk koo xam ne ni itam kilifa la woon moom itam mu daal di koy jaale ñi nga xam ne itam ñoom la ko bokkal njiitu réew mi itam ndokkeel na sargal na kilifay réew kilifay diini ji ndax ni nga ko doon wax suñu réew loolu suñu borom defal mm-hmm. mag ñi liggéey fi liggéey boo xam ne ni itam ndono li fi nekk mm-hmm. te seen itam njaboot yor ko mm-hmm. ñoom itam ñu am lu ñuy jokkalante njiitu réew mi kon bu ñu yeggee ci bisu feet doon bisu umma te ñoom ñu teewal fi itam umma bi day yell njiitu réew mi ndokkeel leen sargal balu leen ak nee na mi nag mel ni ñu ngi koy tijjil wotoom fi nekk nii muy war a dellu déwante ne ni balu na ak ñëpp balu ak ñëpp di jiital itam ci li nga xam ne ni moom la def suñu kilifa yi nga xam ne moo jiit jiite RTS té ñu and ak mom ci liggéey ak mbolém kilifa itam ñu yebal ñu ñu nekk fi ci mhm. touram moom itam ñi ngi sargal ñëpp di ndokkel ñëpp di balu ak ñëpp itam eh, mhm. di sante bu baaxa baax ci li ma dend ak yow mm, ci tawfex gi ñu ak mbolém ñi nga xam ne itam ñom lañu andalon ñu doon mm. ay technicien té ñu jàppale ci liggéey bi mm. ñooñu itam yar sant lañ jërëgal nañ Ibrahima effectivement seigne hali rappeler tout simplement que le président a vraiment pris une décision très, très, très importante, c'est-à-dire d'allouer 100, 100, 100, milliards de francs CFA pour euh, accompagner les agriculteurs. On sait que nous sommes dans un contexte très difficile, trois années de Covid qui ont plombé toutes les économies et aujourd'hui, il est important vraiment d'accompagner davantage les couches les plus vulnérables. Et on sait que le Sénégal est un pays des cultivateurs, d'où la nécessité d'accompagner les cultivateurs pour que cette souveraineté alimentaire dont on parle soit vraiment, soit vraiment une réalité. Si aujourd'hui on va dans la vallée du fleuve Sénégal, il y a un potentiel énorme qu'il faut vraiment mettre en valeur. On fait d'excellents sujets là-bas. Hein, ah. en position de reporter là-bas. <laughs> C'est ça, c'est ah ça. <laughs> Donc, euh, rappelez tout simplement qu'il y a un potentiel important qu'il faut mettre en valeur pour maintenant accompagner ces cultivateurs qui sont dans la vallée, dans la basse Casamance, mais aussi un peu partout pour mettre en, en pratique toute cette volonté du président de la République relative notamment à l'atteinte de la souveraineté alimentaire parce que, mis à part cela, il faut rappeler qu'aujourd'hui, il y a le problème du dérèglement climatique avec son lot de conséquences qui ne cessent vraiment de causer beaucoup de problèmes, surtout les pays du tiers-monde. je crois que c'est dit et c'est bien dit et que ben, on est en train de, de, terminer mm. alors euh, cette euh, matinée que nous avons vécue ensemble. Mm-hmm. Euh, c'est ce bon bout de temps que nous avons passé ici ensemble mm. qui a consacré euh, la fin du mois de Ramadan cette prière euh, de qualité mhm. et que nous réitérons nos félicitations. Mhm. Comme l'a fait le chef de l'État, nous réitérons notre pardon et nous implorons également le pardon de chacun et de tout le monde. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour que euh, pour qu'il continue d'assister mmh. notre pays Amin. et la Ouma et qu'il continue également de nous gratifier de sa miséricorde Ibrahim. un plaisir de partager toujours bal partage, ñëpp bal ak ñëpp ziare ñëpp ñu teew kay déwni déwén suñu borom gën ñoo defal ay taw ci fànn yëpp itam gën mm. suñu imaan ak suñu pas-pas ngir liñ ciy sentu dal mm. ñu mën diko ko joxe te yi daje ëllëg suñu yërmande suñu borom dañu am suñu benn imam bu ñu nekkal mm. imam sek ma ngi koy ziaré mu lay faral di wax naan yalla suñu borom boole ci ñi muy tabal ay te du leen topp ah, mhm. euh, bu lay amee ci mbaaxam gi mu mhm. tabal ay te du la topp da te itam la finalité. Mhm. du lenn du tabbi àjjana rek. <laughs> mu àtte ñu ci yërmande taw feex yëpp waaw loolu rek ah, ñaareel euh, suñu mag yu baax yi ndeysaan doon ñu doon ñaan àjjana. mais dañoo doon ñaan ngërmandeel yàlla. ngërmande suñu borom waaw waaw xam nga yàlla moom boo amee ngërmandeem ci lépp ci lépp xëy bu lu war bu mag bi la. <laughs> c'est ça kon nag euh, déwénati leen baal leen ñu àq nañ leen ñu teew kay déwén dewan ziare fasaale incha allah salaamaaleykum wa rahmatullah kon ñu ngi wàcc suñu kàddu foofu. waaw ah, Cheikh Bamba au Triangle Sud ñu ngi lay gi. waaw ah. mu euh, euh, Serigne Khaly Seck jërëjëf euh, Ibrahima Ndong ñu ngi leen di leen bal wax di leen li kon julli it gi fële ca grande mosquée bu ak teewaay njiit réew mi de la république Macky Sall ñu ngi ñaanal di di ñaan nañ ko ay déwéni déwén inshallah. Euh, yàlla may ñu wér gërëm ak kattan ñu wooree weer wi yàlla yokkuñu ay xewal ñu leen sant bu baax di gërëm ñëpp euh, di leen bàyyi ngeen wéy ak seen programme télévision nationale di leen ñaanal feetu jàmm ñu ngi ñaanal ñëpp bonne fête jaa ngeen jëf